alquran di nga xam ne ci la xel yëpp ñoom réer rek la leen yokku yàlla bu sori lee nit yërmandeem la war a jubale moom ak réer la yokk rek laa wax de <clears throat> alquran mooy li nga xam ne xel yëpp ci lañ gindee ko ku jub moo la jubal mooy làmp bi nga xam ne moo leeralal ñëpp waaye xeefeer yi ñoom lëndëm lañ ci yokkoo ak réer ak sori ko rek laa wax de loolu nag jar naa lu tax nag ñëw alquran yokk leen réer mooy laaya ji wàcc xam nañ ne dëgg la waaye kañaan moo leen di jàpp nag ñu di ko mu yokk leen bàkkaar ak musiba jullit ñi nag laaya ji ñu xam ne waxe yàlla la ñu daal di ko jëfee mu yokk leen ak leer ak ak gindeeku rek de wala si la nga xam ne yes alow na la ñu ngay laaj minu ci moom kitaabun téere la mun zorum duñu wàcce xat ataawam loolu koy dikkal na leen warti xaawoon ak yëkkatiku daraja loolu dikkal na leen de xefeeri ñu ngay laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne lu tee yàlla wàccee ci yow ab téere boo xam ne dafay jógee ci asamaan rek wàcc ndoor benn yoon comme nu ngi ko defe woon ci yonent yàlla musa jox ko ab téere muy tawraat benn yoon la ko jox lu tee nga am loolu bu seeroon ne téere boobu kay ñëw na gën a yéeme tawraat ndax tawraat lu màgg-màgg soppi nañ ko dugal ci la ci bokkut jamono ñëw na ba mu ràpp waaye alquran moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf na yàlla ko garanti moom du ràpp du réer du yàqu kenn mënu koo sànq de kon téere boobu ñuy laaj kay dikkal na leen xanaa dañoo dëgër bopp rek de yëkkati ko daraja it dikkal na leen daan nañu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam du tee mu yëg ci asamaan sa waaw bu fekkee ab yonentu la waaw wala nu mel li ruqiika duñ gëm sax sa yéeg gi lu may nga wàccee ñu xataatu nazil alayna kitaaban mina lu may nga wàccee téere bu na ndax yonentu rañaan na jugee fa waaw daal di dem asamaani juróom-ñaar borom bu asamaani juróom-ñaar ba yegg sidratul muntaha ba deseeg borom moom comme niñ ko jàngee woon rek laa wax de kon yéeg gi na téere bi xam na waaye teewut wedd nañ de wala si la nga ne is aloona danañ laaj minu ci moom kitaabun téere la mun bu ñu wàccee war tiqaaw ak yéeg ak yoonam du ci asamaan loolu kay xat ataawam dikkal na leen xanaa danga jàpp léegi awalam yëg fiim xanaa doyul leen zikrun ak waare mina laaye bu jugee ci yàlla fii nekk na ci rahmatun yërmande wa shifaa ak ak saafara li naa si ñeel nit ñi xanaa saxaaba yi niñ gindeekoo yéen mun leen koo gindeekoo yàlla andil na leen alquran ju jugee ci yàlla alxuraan joo xam ne yërmande la ñeel nit ñi saafara la ñeel nit ñi xanaa loolu doy leen loolu kay war na leen a doy alxuraan war naa doy ku nekk ndax lépp yërmande mu ngi ci biir lépp luy saafara xol ak yaram mu ngi ci biir alxuraan nga xam ko nga ñàkk koo xam téere bu mel noonu kay ku nga xam xanaa war nga ko doyloo waaye ku yàlla nattu moom li war doy du ko doy mukk en lottaloona alinsa nit ña wal jinna ak jinne yi aayatun benn aaya minu ci alquran fa la taati lu tee mu andi bihaa ci benn aaya jooju al bulaga way way am balaga ya mooy ñu way fasaaya mu ne alquran mooy kawte bi nga xam ne nit ak jinne yëpp buñ dajee woon andi ci benn laaya mënuñ ko andi benn ñu andi benn aaya ju mel ne alquran te ci arab lañ ko bind nag mu ne nag bu fekkee man ngeen ko def leen yéen ñi nga xam ne am ngeen balaaxa am ngeen fasaxa man ngeen a bind yaaram jéem leen andi rek benn laaj ju mel ne nekk ndax balaaxa mooy wax ju jot ju matale kooku doy ba ci gën a mag mooy wax yàlla kenn mënul waxee ni yàlla di waxee ndax fasaa gi mi fasaa baat yi muy indi ni koy tegalee boo baat boo sensé teg fa beneen rek maanaam ba yàqu waaye na mu ko ranselee boo ci wëlbati rek maanaam ba yàqu dégg boo ko bëggee xam xoolal histoire yaquba alayhi salaam doomam ya bañ ñëwee seen baay dañ ne ko fa akalawu zibu ci ligi lekk na yusuf fekk till li ñu war a wax mooy iftarasa fàdd na azibu till gi waaye kenn doo akkala lekk na azibu till gi lu tax alquran jëfandikoo na fa akkalawu zibu ndax xam ne nii doo fa bàyyi dara yax sax bàyyi woo ko fa dara lépp nga lekk ndoor iftarasa nag mooy rey nga ko rek waaye xam ne la fa nekk te ñoom bu ñëwoon wax seen bàyyi ne ko ci liggéey da ko fàtt dana leen wax andil leen ma li des ndax dana xam ne am na lu des ñooñu yonent li nga lekk na ko ba jeex tekk dara desut su boobaa bàyyi du leen mën a laajee si dara de gis nga fasaal ko moo tax bañ ñëwee dañoo mooy ko asi bu tilli bi mooy yaram wa dara desut lépp jeex na rek laa wax de foofu baatu akkala googu rek fa mën boo fa defoon beneen baat rek yàq maanaa ba wax ju fasaaye noonu ju matee noonu kooku yàlla rekk ko man gannaaw alquran nag yonentu moo gën a fasaa ci lu yàlla bind fasaa ak yonentu kenn xeggut ca waaye gannaa gi nag borom xam-xam yi wute nañ ci fasaa ak jotal ak wax ku nekk rek la la yàlla may kon alquran waxuma sax kawteef yu nëbb yi muy xamal nit ñi waxuma barke bi ci nekk ak leer gi ci nekk waxuma tiyaaba gi nekk ci jàng ko waaye fasaa ak alquran rek laa ak balaa kenn mënul andi lu wax ju fasaayee noonu li teg jinne yëpp buñ daje woon mënuñ ko. moom la woon ahadis la tuloona alinsa nit ña wal jinna ak jinne yaayatun benn aaya minu ci alquran fa la taatidu te mu andi bi ci alquran ci ab aaya albulaga way balaaga yi andi leen rek de makka ay arab lañ donc yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo bokk juddu foofu lu yonentu mën a wax ci arab rek ñoom mën nañ koo wax de la yonentu moo leen gën a fasaa ah, bu yonent bi xëyee nag andi téere boo xam ne nee nga leen yéen ñëpp bu ngeen dajee woon dimbali ko jinne yi mën leen a andi benn aaya lu toll ni benn aaya ci sama téere bi mënu leen ko ngeen déggee ci ne loolu dafa jógewu ci nit yàlla la jóge bu jógewul ci nit nit ñi topp ndor ko bindal rek lu bind mi rafet rafet boore kenn mënu ko nit indi lu dàq sa bind kon alquran yàllaa ko wax moo kenn mënu andi lu mel ni moom kulli yawmin bis bu nekk yow di dana addi yàll alquraaw jàngkat yi moo gisaatin ay kawtéef min laf ji ci baati alquran ila saami jëm ci ñu koy déglu bis bu nekk rek jàngkat yi ñu ngi addi yàll ñuy déglu alquran kawtéef yu kéemtaane kéemtaane yoo xam ne ne yàlla rek a xam nu mu toll maanaam bis bu jàngkat ba bu jàngee alquran rek laaya jëm jàng rek boo ko déggee rek laaya jooju moo ñu sala kawteef la ñeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war na yàlla ko yónni ndax laaya na rafet goo xam ne kenn mënu andi lu mel ni moom wala nga ne jàngkat yi laaya yi ñuy jàng saa yu ko dégloo rek mu yokk la ak maanaa ak ak dégg-dégg bu bees boo xam ne daana wan ne alquran wax rek la mën a doon de tataxalla dana takkaayoo bii ci alquran almasaami wu noppi tataxallaa dana takkaayoo bii ci alquran wala boog tataxallaa dana neexlu bii ci alquran ala foo gémmiñ yi bu dee nopp yi moom takkaay nga koy mooy neexlu foofu moom alquran alxuliyu mooy takkaay ga wala xalwaaw te mooy lu neex la xalwaaw mooy lépp lu neex ni ki lem alquran mooy taari nopp yi nopp yi nga xam ne yàlla tànn na leen déglu alquran ci dañuy taaroo waaye gémmiñ yi tamit yàlla tànn alquran la ñuy neexloo jàng ko mooy seen bànneex kon alquran mooy takkaay yi taaral noppi góor yàlla yi waaye mooy lem gu neex ga gi nga xam ni mooy neexal gémmiñu góor yàlla yi rek de raqa sew na moom alquran ci baat maanaam baatam yi baat yu rafet yu neex a tudd loolu mooy baat bu sew waraaqa sell na maanaam ci maanaa ay maanaam dafa set wecc sell leer naññ amul lenn lu ci lëndëm fa jaat andi na alxansaa ndaw suñuy wax xansaa ku mënoon a way la tafasaa fii xulaaha ci yëree alquran waxaliyaa takaayam xansaaw koddaayam ak takkaayam ni mu rafetee dafay niroog alquran xam nga ne alquran moo dàq xansaaw fu de waaye waxin la rek de waaw yàlla niroo dina leeram gi ak jant xam nga ne leer ak yàlla gi moo gën a foor leer ak jant bi moo tax mu ne boo bëggee xam daal taari alquran xoolal xam saaw ca ko daayam ga ak ca takkaayam ga waaye alquran moo gën a foor xam saa xam jigéen loon si sa jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko mënoon a way yonentu daan diglu ay bu waayee bu bëggoon noppi rek na ko yokkal ndax ku fasaa la ku mënoon a way way arab nag wax wa wan nañu fii ci alquran غوامد فضل نير يوي قوت رق لوني وان رقتن اك سيو من زلاله جنهم منيحما وصفاو اك سيل القران باتم يسيو يوي نيو ني генل مانا يو خامن نير يوي قوت قوت يسيو موي خام يالا نيك سي بيت اك لير يي نيك مو نيك سي القران بات يي نيو ني كو وان اك كون باتي القران يسيل يوي بو مين ندوخ مو maanaa yu set yooyu ñoo ñuy wan waaw xam-xam yu xóot yi nga xam ne ni mu ngi ci biir alquran innama tujtala naka danañ yër alwuju kanam yi wala innama tujtala naka danañ gis alwuju kanam yi isa julliyat buñ nàmmee wala buñ dindee ras daaw xoomaat yi an miraati seetoom seetu daal bala moo génne kanam foo dindi xoomaat xoomaat ba tilim tilim ba waaye seetu bu tilimee boo xoolee doo gis sa bopp wala gis ga du leer kon boo bëggee xool seetu gis sa kanam gi mu leer naññi da ngay dindi xoomaat ba waaye bu fekkee bëgg nga xam maanaa alquran yi da ngay raxas sa xol ba mu set waaye xol bu lëndëm moom maanaa alquran du ci man a feeñ xol daal moog seetu ñoo bul bu bu setee wecci dana wane kanam gi mu jàkkaarloog dégg nga waaye bu lëndëmee nag dara du feeñ. xol it noonu la waaw bu xam-xame yàlla yàgg leer yàlla yi danañ ci mën a dugg tëb yi danañ ci am place waaye bu xol bi la demee nag leer yàlla yi du ci mën a dugg tëb yi du ci am place ak de loolu la bu saytu di moo tax mu ne karam yi dañ leen gis bu fekkee dinañ nañ xomaat yi ci seetu ba rek waaye nag bu seetu ba xomaatee kenn du gis kanam kon it maanaa alquran yooyu ak xam-xam yu sew yooyu may wax yu nëbbu yooyu ci xolam set kooku ko mën a gis waaye ki xolam la nëb mënu koo gis. sóorun ay saar la minu ci alquran asbaat niru na sóoran ay jëmm min naa ci ñun wa mislu nazayi comme nen di anuzaraaw morom yi maanaam mbir yi seeni morom lañ leen di niruleeg saari alquran yi mooy niroog jëmmi doomu aadama yi ñoo bokk waaye bokkuñ ñoom ñëpp ay nit rek lañ koo laal rek ñu ne waaye nag bokkuñu melokaan bokkuñu jikko bokkuñ li ñuy waxee bokkuñ ñuy defee bokkuñu xaal bokkuñ dara nit ku nekk rek ni mel moom rek moo ko mel saari alquran ñoom ñëpp alquran rek lañ loolaa rek ñu ne alquran la waaye saar yi bokkuñ nekk rek am na mbóot hmm? saar wu nekk rek am na moon bu ko yàlla jagleel moo xam ne moom rek moo ko am saar wu nekk rek am na secret su nekk si biir yaa ngi may dégg kon saari alquran ñoo jëmmi doomu aadama yi ñoo ñoom ñëpp lan lañ doomu aadama lañ waaye xam nga ne bokkuñ nag saari yi ñoom ñëpp lan lañ alquran lañ waaye bokkuñ moo tax mu ne soo bëggee nit ki comprendre dara da nga koy eh, comparer lam den nag loo mooy wa mislu nazar nazaayir an nazaraaw loolu la ñu yàlla andil loolu nag la jàngal la ñoo doomu aadama bul xel sa bopp ndax nit ku nekk am na may goo xam ne moom nag la ko yàlla may mayit ko keneen may googu yàlla def ci yaw fexeel ba jamono bi ngay dund waaw nga jëriñ ci jaam yàlla yi jëriñ ci sa bopp waaw gërëm loo ci yàlla de waaye buñ la yow mënoo dara nit ku nekk am na loo loolu dana wax ne di na ngeen dimbalante di jàppalante bu leen wax ne bu dul diw rek di keneen ndax nit ku nekk am na may goo xam ne ci moom rek la nekk rek la wax de dimbal leen ko ba loolu mën a feeñ wala xaawilu wax yi nag indahum fa inférieur katamaasili comme ay dessin falaa yu mën naka bum la juumloo alxutaba wooy xutba yi juum mooy nga foog lu amut mu ne xéeféeri nag xas gi ñuy xas alquran ak wax ju ñaaw yi ñuy wax ci alquran dara du ci dëgg moom desin xam nga nit moom nit la waaye ak desin mënul wax mënul gis mënul yëngatu mënul dara dafa mel ni jëmmut tëdd jëmm la ñuy wax ci dafa mel ni waaw ak desin xamul benn njariñ du dëgg xam nga desin ak fen la desin nga nit ñu romb lii lan la borom xel dana xam ne du nit bi la niru na nit féeféer noonu la ñuy defee jëli fen ak i caaxaan taaral ko melal ko ba mel ni dëgg la ñu ko xasee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk du dëgg ay nar rek la yoo xam ne ni ñoom ñoo ko créé waaye du dëgg amul benn njariñ it yeneen xam loolu ndax lay wan ne la nit ñi kenn mënul mucc seen làmbañ waaye ku baax xasam mooy dëggam dëgg gi xam ne nekk na ci rek moom la jël. taaral ko ba mu taaru ñu xasee ko mooy lañu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah ñu ne waaw Muhammad de daf dofloo dofloo suñu bàyyi fekk mu leen wax xerem yi ngeen di du jariñ du lore mënul dara kon bàyyi leen ko fa jaamu yàlla bu loolu dëgg ñu ne loolu xeeb la ñoom jël nañu wax ji ñaaw ko ba mu ñaaw ñu askane ko yonent bi sallallahu alayhi wa su fekk wallaahi yonentu waxul loolu moom daf ne leen rek xelam gi dafay lore rek ngir jëriñ leen waaye ñoom nag xaste lañ ko gisee kon it la ñuy wax ci alquran naan yonentoo ko fenteg njabar laat nangam yooyu daal moog desee xam dara du ci dëgg kon bul juum kam abaanat ñaata yoon la feeñal ayatoog aya alquran yi menoo loo men ci xeeti xam-xam yoo xam ne nii abaana leeral laxnaa ci moom alhijaaw an xurufin mu jugee si xaraf yoo xam ne abaana leeral naa naa ci moom al hijaaw ijjiya xaraf ijjiya aaya alquran yi ñaata xam-xam lañ génnee yoo xam ne ni mu ngi jugee ci xaraf yoo xam ne alif ba taa saa gën ñu moo ko wane maanaam xaraf yooyu ñu ngi ko xarafi alquran yi ñu ngi ko jëlee ci xarafi ijji yi mu andi aaya yi aaya yooyu kawteef yu bari ak xam-xam yu bari yàgg na cee génn rek laa wax de yàlla allah xasal cër bi gën a law fa yee moom alquran kalaxab bi comme benn pepp war na waa wala nga ne comme benn saal ajaba yéem na azuraahu baykat yi minu ci moom sanaa birin gub ya wa zakaaw ak màggam alquran barkeem nim mel lay jàngale nee na mu ngi mel ni pepp wala saalab tàndarma wala saalab lu mu mën a doon da koy jël ji ci suuf mu màgg génne ay gub kawe lool yëkkati ko ba mujj la benn pepp rek nga ji waaye meññal ma kenn xamul nu toll noonu la barke alxuraan mel moo tax lu waaye mën a jàpp lu dul alxuraan boo muusee ba ko fa dem jàpp ci alxuraan tey de mën naa niru ku ëpp barke waaye boo liggéeyee ñëpp xam ne yaa ko ëpp barke yéen ma noonu la alxuraan mel dafa am benn kilifa gu mag gu baax bu ko defee mu génn àdduna taaw wa daara ja sonal ko ak njàngale ma ndax loolu dafa métti moom mu gérer alal ja alalu baay ja rekk ja jël daara ja mag xel ñëw ne leen bu leen tas seen kër gi yow yaay taaw demal ci daara ci yow yaa ci topp gérer alal ci ndax mag mooy jiitu xale topp ci mu ne ko barkeeb alquran dafay sax waaye barkeeb commerce lay màgget yaa mag bis boo demee ci commerce bu ëllëg mbir ma ruus mu màgget alal ja dem nga bëgg a ñëw nag jiitewaat daa ji du mën a nekk problème am waaw kon commencé ko tey wallahi wax na dëgg barkeeb alquran moom toujours lay màgg waaye barkeeb commerce toujours muy wàcc ñaata commerçant ngeen fi gisoon ñu am lu dul jeex xëy xëy mel ni du ñoom dara xamuñ ko mais alquran boo ci saxee gëm ko toujours mu di la yëkkati da dem ba ci kanam waxuma laa li àddina waaye lu ne yàlla dana la ko jox moom la buusari di wax nee na barkeeb alquran dafa mel ni benn pepp boo mu sax ay gub yu meññi naat lool waaw yàlla nañ ci yàlla saxal yàlla jox ñu barke boobu faataaloo guddal nañ fii ci alquran ataraduda déng-déng waray baak sikk fa xaaloo ñu ne seexul njabar la wa xaaloo beneen yoon ñu ne iftiraawoon ak fentir ak sos la mu ne kaw téefevéeri saa su nekk rek ñu ngi deng déng ci alquran duñu wax lenn tey ñu ne njabar la souvent ñu ne déedéet du njabar waaye doo ko fent fente waaw gannaaw suba ñu ne ak woy la lu ne wax nañ ko loolu mooy waxi ku taxul fenn kuy xaslu xasuur bis bu nekk ak ak wax joo wax su nekk ñu ngi sikki ci alquran alquran amul sikki waaye ñoom seen xol ñoo moo la ndëm waysal bayinaatu ndem laayu leer lam tux ni jëriñut chean dara faltimaasul huda sàkku njub biim na ci laay yooyu kooku xanaa un coono la bu fekkee aaya alquran yii mënul jubal nit kon kay jërul ngay jël laay di ko wax pour mu gindeeku waaye nag naa la xamal benn affaire képp koo xam ne alquran mënul koo jubal leneen mënul koo jubal bee boo nga ci moom boo ne ko yàlla nee na mënu laa dégg yonentu nee na mënu laa dégg jërul waxaat leneen bu ne la moom xelam la topp yi dafay fen rek day nar topp dara ku yàlla mënul jubal xel ak ku yonantu laa jubal kooku xel mënul laa jubal rek laa ñu dara kon di jéem a jubal nit ki ci laa yooyu soo coon rek la lay jubal la lay andil ci kaw xam-xam fa lan la koy wax an nusra lii dëgg pare teew ko ku lay digal lu lay maanaam koo xam ne xam na ba pare dëng yow mi nga xam ne yaa koy jubbanti ana loo ko mën a wax mënoo koo wax dara de ndax moom xam na waaye dafa bewag de kooku xamutul loo koy digal su ko defee nag mu war a dugg nag ci nasaraan yi mooy yahudi waaw nasaraan yi waaw muy alul kitaab yi daal di wax ak ñoom yedd leen nag ci wedd gi ñu weddi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fay na yoon ñëm hada yudrisa mastatuma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh